Sénéginja, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Dream Cosmetics. Savon pâte, savon poudre, savon dur, 100% naturel. La main, l'hygiène et la propreté au quotidien. Mayonnaise, onctueuse et délicieuse. Alib, le goût naturel du lait. Jenny Ginger. Ken du lam Moye Joker. Ouais, BHT c'est l'expert de l'électroménager et des produits high-tech. Diwan Décor, votre personnalité devient un style. Novotel, Regis, Japan Motors, représentant officiel Nissan. Sisters of Africa, la mode fait par nous pour vous. Fine Aiguille, le roi du sur-mesure. Sawan, Fashion Dress. Ibeno Couture au bonheur des dames, Boubacar Touré recréons l'habillement, Manina Institut salon de beauté afro, Momo le boutier. L'RL.net, ay qui ci tangue L'RL.net, bi you ay L'Océan Atlantic City hôtel restaurant traiteur. Papa Gastro restaurant professionnel en gastronomie. Bisco Bisatco. Métis Jazz Lunch Bar route des Almadies en face Stade voilà pour képp ku bëgg am samay actualité samay news xam si lan abonnez-vous chaîne YouTube bu Vibe peace. Commandez votre costume africain en ligne sur www.keifaworld.com et faites-vous livrer partout dans le monde. Keifa, la mode autrement. gis fulla jigéen romb ndaanaan romb na la na xool nga ko loo gis li mu sol wala yow li ci xolam seen nga ko ni mu mel wala li ko sonnal yow moom nga yëg jigéen boo gis ni muy noppee noonu lay muñee Dubai, Dubai ki mooy jom mooy ki ñëfe ki gëm boppam romb na la du la xaar de moom day tabax ak dinam yow day foogee ni mu ngi yaa mën na am bëgg-bëggam moom lay topp mën am bëgg-bëggam lay topp Je suis vraiment désolé mais je ne peux pas faire ça. bugguma manga am problème am joxal ma lii laal la ne ko benn coursier moo fi indi de ma part sopinga, sopinga, sopinga, sopinga, sopinga, sopinga, sopinga, sopinga, sopinga, sopinga, sopinga, sopinga, sopinga, sopinga, sopinga, Moussa joy. papa ko qui t'a donné la permission de sortir. maman maman. bonsoir mandal, dama ñëw ba ñu ñu sama Je suis encore sous le choc. Je suis vraiment désolé maman. Adjana, moi je pense qu'on devrait la laisser rentrer. Adjana, elle m'a préparé. Oh mais Gaoul, il y en aura plein d'autres occasions. Ça va bien, ne sois pas triste aussi chérie. Je t'aime bébé. Pas de soucis, Marem, je comprends que tu ne puisses rester dîner.

aka ci gaaw boko ko joxe dina takaliko ak boobuy metti aljana de boobuy metti moy febaram lima ci jaxal kay moy hôpital ak nan garab waxu ci dara papa tata bi moo nekkoon ci sa telephone tëj salamine làmmiñ suba ci heure bi ngay Noura defal li papa wax djugal bisu tata

sañul may wax mu ciy teg baat ba baal ma nag baal ma de aljana temps yi dafa naqari deret ba nga xam ne xam naa liggéey bi la reeral yow de yàlla may na la kii ak ni mu tàngee xol man genre yi duma dëkk ak Cheikh de ñàkkul sikk ndax personne n'est parfait Oui, muñ sikku xol gënal fouf di muñ sikku mën tan ak ñeme yalla te sax nag ma ngi ci du dangay jaay wéyu maa la gën a bàndi foofu loo may xoolee danga nga ma Marème xam naa la bu yàgg du ne nga yaay gelu Cheikh lekkal ba suur te xam ne tey jii nii bala nga fiy jóge dinaa la wal ba nga mokk lu may xulle Lalla dama yaakaar carne de juum <laughs> merci beaucoup reer bi neex na mais maa ngi ñibbi eh xam nga lu ma bëgg nga jóg ndànk topp ma ci salon bi ci bi muy gaaw gis nga kii bala mooy wàcc bay ñëw di la wàllu si dina fekk ma defal la bagage jaar ma nii te muy gaaw ma ne gaaw ma ne daju instant bi de jommi nga yow mosoo naanee ndox ni xam naa la sa jaabante sa dem sa ñëw sa ñàkk jom lépp xam naa ko <laughs> Marème bu dee benn bés sax maa la ko mag instant bii sa xel baa ngi mbalax lu bari loo wax fu la sa wow li jaax ak sa dëgër fit ak sa ñàkk kilifa <laughs> maram nag kii du yow tey xàmmeetuma la de <laughs> gis nga instant bii danga may déglu bu baax ma expliqué la lépp ni mu demee 没关系。 lan la bul xool ku seet gis de te yow xam nga Cheikh bu baax est-ce que mës na am lu tax ma war a duti ci moom. je suis très fatigué. Massa. 9 heures et quart de vol. ah métti na. non li moo tax ma bañ voyage bu yàgg sama digg li yëpp ay métti. ma ne mënuma si dara. Oh, sinon Cheikh comment tu vas. nii rek namb la Diagne. namoon naa la. Cher. Oui. li lan encore. Cher Dofolo, lii lan ah. je reviens de voyage ni yotam. Hein? yow je ne peux rien faire de mes dix doigts.

aduna bi gisuma benn jigéen bu ma jaral may doxaan walla xoolal sa bopp yow tam kan moo lay am di wuti leneen waxal rek lan la gëmoon nga ko wala danga ko nëbboon ba yaakaar ni du mës a doxaan lan la bul fàtte mukk ni ku xool gis ku seet daj tey laa la yee saaga la ba nga tooy naa la xas naa la dóor te yomb sax damay dem doxaan benn jéeg du ko sëyaale téléphone bi moom moom laay jël dëbb ko ba mu mokk bu ma koy laaj ma ko koy saxal pour lan sax may dem di wax ak moom comme moom daf may nëbbatu naa ko réer bàyyi rekk ma toog xaar ndax dina ma wax walla déet mbaam mu wan ma lenn luy tax ma xam ne day doxaan ci lii sax nag dina tax ma xam ba ban degré la Cheikh mënee fen waa ku jigéen kii kan la sax فوق ما خملوا مانكي باتاخ شيخ دف لي accum jeegi ngi ci jeegi day ku mën defal aljana depuis kañ yaa fi depuis sank est ce que xam nga duma doyal ci di xol xool <laughs> ma doori mak yoy <laughs> aljana bu xamone ni ma la bëggee ak ni nga soree ci man est-ce xam nga àdduna du yàgg ba mu wut keneen ndax doy nga ma sëkk. je suis un homme à une seule rey ma benn yoon ma dee. <laughs> aka yàgg sonn ci di ko bégal aka dab bànneexam waaye tey. xam naa ni kii jarul tus dama ko war a posone ya, sax man kii dama koy jam rey ko mu dee benn yoon ñëpp noppale ko allo jali i ba jàmm looy jooyati nii xoolal bàyyi jooyi te wax ak man

kat mom du ko mësa nangu xana nga japp ko rek man de ku ma tegaloon kaamir ma wat ko <laughs> e way samba ngani la ay wax yu neex <laughs> ngani num koy wowe sax ngani ni jommi man ha bilay gor ñi ñoo mëne nu ne xoola jali takkal say bagaas léegi laa la wax nga dem sa yoon ma ni doxaan kenn du ko sëyaale te gis nga man mii njaay jaata madame aljana duma ko fa sax xaar duma sëy doxaan kat bokkul ci samay principe ma ne maa ngi ñëw léegi jël si la non non léegi ma agsi Ce problème-là, je vais le régler à ma façon. D'accord, à tout de suite. Jana, yow laa la lu la dal. da nga am gel. gelu lan mais lan laa koy doy. loolu yaa ko xam da ngay doxaan waaw walla déet li ma la laaj kay yomb na. non mais Lalla attends yow lan mooy sa problème hum? maintenant daal tu veux transposer euh, le problème des gens chez nous quoi parce que biram day doxaan. Tu veux que j'en fasse autant Sois un peu sérieuse. gis nga laal man ne fayda pas duma fenkat gis nga su ma doon droit dama koy assumer ba mu jeex A <laughs> ce sama góor way aljana Ma tebbi as way gis nga nak góor ne buñ meloon ni yow kër du am problème. te sax nag ñàkk koo fayda bay taxawaalu ci mbedd mi di doxaan gauche tey jii nii boo demoon ba gis koo bëgg danga koy takk ndax dara tere bu la ko li ma ci ragal kay mooy nga gis doomu jàmbur bëgg koo fooye wala nga bëgg koo nax Cheikh Diagne nag tey maa la sumil chapeau fen yu toy yi nga fi fen tiitoo rafoo <laughs> lànk ne doxaanoo waaye Cheikh nag moom day fàtte ne ñun ñaar sax danoo yàgg après dix ans <laughs> waaye nag day fàtte ni man dama ko xam ba su ŋaaŋee sax bala mooy daaneel man ma jëli lépp lenn rek moo ma metti nag sama intelligence bi nga jël di ci dute di foofu man ma mel ni xale Cheikh man mënoo maa dóor sa bopp rek ngay nax gis nga sa fen yi ngay fen dinaa la won ne li ma mën ëpp fuuf sa jaga bi dinaa ko topp ba mu jeex tàkk léppay leer teg ci nag di leen play wan leen nan la ak naka gis nga Cheikh yow koo yëpp gis nga sa fen yi ngay fen tax na nga may ma fit bu baax a baax te leen nag bëgg naa nga xam ko sa caga bi nag su ma lijjantiwul sax man dinaa ko lijjanti topp leen ba mu jeex dinaa ànd ak yéen ñaar nag ci seen jeu toog ni pat mel ni ku xamul dara Allô est-ce que tu peux venir tout de suite à la maison C'est pour une urgence. Ok, à tout de suite, Inch'Allah. Mansour oui sama jëkkër la bëgg nga ma pardon. Cheikh sama jëkkër te xam nga ko. Wa fu mu dugg nga dugg fu mu mais madame Diagne ma kenn du ko de. Mansour sa yone ci te da ngay rek.

fajar teel nga xëy dinaa xam ndax dafay bàyyi wala dafay continuer incha allah na sa xel daal Marème Dial fi nga dugg baaxul dangaa juum gis nga man lan la PM Ndiaye mii madame Ndiaye sama jëkkër kenn du dugg ci moom gis nga fii sama territoire la tu par force. Sénégindia numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Dream Cosmetics. savon pâte savon poudre savon dur 100% naturel. La main, l'hygiène et la propreté au quotidien. Mayonnaise onctueuse et délicieuse. Alib, le goût naturel du lait. Jenny Ginger. Ken du lam-lam joker jar du ak joker Vous chef. c'est l'expert de l'électroménager et des produits high-tech. Diwan Décor, votre personnalité devient un style. Novotel, Regis, Japan Motors, représentant officiel Nissan. Sisters of Africa, la mode fait par nous pour vous. Fine Aiguille, le roi du sur-mesure. Sawan, Fashion Dress. Ibeno Couture, au bonheur des dames. Boubacar Touré, recréons l'habillement. Manina Institute, salon de beauté afro. Momo le boutier. L'RL.net, ay xibar ci tangue tang bi ay xibar yu woor ak L'Océan Atlantic City hôtel restaurant traiteur. Papa Gastro restaurant professionnel en gastronomie. Bisco Bisatko. Métis Jazz lunch bar route des Almadies en face Stade d'Ungor. Vibe Radio. Le nouveau son. Commandez votre costume africain en ligne sur www.keifaworld.com et faites-vous livrer partout dans le monde. Keifa, la mode autrement.